voilà mbokk yi maa ngi siyaar mais fekk na lan moo tax yow làmb doo ko bokk yow. yow pour yow journée yow rek ko war a bëre yow. waaw ah, mais ni mu rek loolu laa xam moo tax. mais ngay bëre xale. nga ne tey kut ko kut da ngay jeexal làmb ji. waaw ah, parce que maa ko moo tax. mais est ce yoon la aussi ak expérience bi nga am. nga ñëw ci bés nga ne yow rek war a def. waaw ah, bon làmb la daal xam làmb moom dafa bëri sew. làmb la daal xam maa ko mën fuuf sax ba suba. daanu na ci biir combat bi mais si bu ma loolu. def na kaara bi ci biir combat mais si ma loolu la yàlla dogal. mais ma du ma moromam sax parce que koo xam ne xeexul barewul yaa def lépp ñàkk da nga xam ne juróom suñ boroom mayu la rek. nga liggéeyuwaat àndaat ak say mbokk kese. comme lan moo ne sa kanam. non lamb ji tëj na. tëj na maanaam naa ay morom ci lamb ji maa ngi toog di xaar damay préparé ji. xaar tëbëg si ba pare dem essayer entraîné ji préparé ñëwaat. est-ce que bu yoo ñibbi si waatee di nga indi physique boo xamante ne ku la gis dana xam ne. non man saa ma ñëwee indi physique. mais lamb moom li ma ciy wax rek des fois li ma ko dul partager moo may sonal. loolu rek la xëy na dinañ ci liggéeyaat bu baax daal. Eh, noonu lay demee. mais est-ce que aussi euh, kilifa gi gars di wax si yéen aussi du. waaye gisuñu du ñàkk kilifa du ñàkk kilifa Lamsar amul kilifa. président Cheikh Niang rek lañ am. mais Maxime Bergane moo leen doon. Max du kilifa kenn talul kenn ndax liggéeyam wala boog noonu la demee. maa ngi gërëm Matar Ndiaye bu baax sa ménagère maa ngi koy gërëm baax kilifa bi ñu am mooy Cheikh Niang mooy xool nii ñi ngi ci lan. noonu la demee mais pourquoi leen duggee daan leen loolu moom la loolu moom nga koy laaj. loolu moom nga koy laaj mais man li ma xam ba xam mooy Père Aline suñu kilifa la Cheikh Niang suñu kilifa la. yee Père Aline Diop ñoo préparé ndoo combat bi ba pare mais dafa tawat moo tax ñëwul keroog bon manqué na ma ci benn côté bi parce que sama mag moo toog 16 entraîneur mais man man kese su ma ñëwee ci làmb bëre maa ngi bëgg a yàgg ci làmb mag laa ci làmb bu ma xale ci làmb noonu la demee mais ñi ngi bëggee ñëpp képp ku jàppale Feugeula ñi ngi lay bëggee mafia mëneur bi ñi ngi bëggee ñëpp waaw di sant waa Bilbao ñoom Toumane gars yi Omar Gambien Pape Dia bëggee ñëpp waa Amérique bëba alaaji xam nga di la ñaanal mission bi nga ñëw ak jàmm di leen bëggee ñëpp xam nga yaa sagar weer bi jël ñëpp daal jaayef copain yow suñu